bon sa euh, ça reste à désirer quand même parce que ni ma gisagum nii je je sais que nit ku am fulla la nit ku am fayda la. nit ku am caractère la waxam bëriwul nag euh, waxam bëriwul nit moom bëgg ko waxal ko jikkoom bañ ko waxal ko jikkoom euh, waxam bëriwul il a été toujours calme je me rappelle benn jour dañoo dem saccager seen. siège bu yoof ma nga génn def vidéo bi ma nga tooy bay bëgg de dee <laughs> mook Biram Souley mais bi ma ñëwee ma leen yéen da ngeen a tooy torop ay nitu jàmm ngeen waroon a waroon ngeen a def lii ba mu gën a am beneen ampleur ñu ne non li nga xam ne moo fi nekk rek moom la ñuy moom la ñuy wax. léegi qu'est-ce que vous voulez parce que nitu jàmm la. mais Ousmane Sonko non xam nga nit. nitu jàmm ak nekk Corse c'est pas pareil. li nit ñi di wax ne Amadou Ba dafa dafa dal effectivement moytu ma ko dal. gis nga mm-hmm. genre Ousmane gi sama genre gi la rek duñu dara. genre yi ñoo garaaw gis nga moytu ma ku wax ab tooyemaan moytu ki naan la kii dafa tooy dafa tooy dafa dal dafa dal moytul ma kooku parce que kooku il réfléchit très très vite ñi dal ñi mais sama chargé Ousmane moom dañuy mbaw rek mais euh, je pense que si a toujours Ousmane Sonko dans ses pattes parce que là on voit un président auprès président wala un premier ministre auprès du président. c'est qui le président des deux. Euh, celui moom la 54 54 pour mais fi ñu toll nii c'est Ousmane le président. mooy def mooy nas mooy nocci parce que bu nekkee xam nga tuuti Ousmane wala ngeen am tuuti loo leen mës rek am na ay ay yu Diomaye di teg rek automatiquement da xam ne lii c'est pas Diomaye c'est Ousmane Sonko. comme ban par exemple. Euh, bon par exemple euh, les les les. le, le, le gouvernement le, les les ministres. parce que quand tu vois Birame Souleye yenn Euh, euh, El Malick booyu Ousmane Sonko yenn postes yi voilà yooyu waaw mais bien non xam nga xam nga xam nga dafa am lu ñu doon wax loo xam ne dafa këppwaat seen kaw mhm. mooy dañ doon wax ne euh, damay wax nit ñi naan ma danga nga teel a wax man leen l'état c'est une continuité oui Macky donne le lenge yi à midi il donne ça à Diomaye midi une minute musiba am Sénégal joomaay moo koy gérer Macky du ko gérer kon l'état c'est une continuité amul lu ñuy taxaw mhm. lu nit di ralentir amul kon acte bu mu def rek bu dul noonu bu dul naka sa noonu noonu rek ku mu mënti doon di nga ko di nga ko critiquer mais les nga wax sa xalaat